jërë ngeen jëf mbokkentox ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen jaajëfal tey nag ñu ngi ci vidéo ñaan jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Serigne Modou Niang borom xay gi ñëpp xam ko ci Touba Njaareem muy ku yàlla may ku yàlla baaxal rawat na ci ci wàllum rab ku saytaane dugg koo xam ne toog nga lu yàgg amoo jëkkër rab di la yàqal rawatina ci wàllum ngóor muy ci jamono ji ñu toll nga xam ne ñu bari yitte woon nañ ko ñu bëri ñàkk nañ seen ngóor wala jafe na leen lool Euh, bu leen seetsee jëmu ju tedd ji ñu jàkkaarloo muy Serigne Modou Niang di ngeen ci am lu leer naa ñi dana jàkkaarloo moom it ni comme ni ñu jàkkaarloo moom waxtaan ak moom ci waxtaan bu am solo rawatina ci wàllum góor a nga xam ne dafa ñu bari ci wàllum rab saytaane ndax jànq ju bari kat toll nañ ci war a sëy mënuñu sëy li leen yàqal mooy faru rab Serigne Modou maa ngi ñu ngi lay fay bu baax a baax euh, soxna si ñu nuyu waa internet ñëpp di leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaare di leen baalu xaq bu baax a baax di ci eh, di ñaanal sëriñ Sidi eh, sëriñ muntaha yalla ko fi yalla yagal lool te wér te di nuyu askan wi di nuyu wa internet ñëpp te hamne seen xarit seen bokk seen sëriñ mo ñëw pour bëgg waxtaan ak euh ci yu am message yu am solo yo xam bëgg nañ ko jaral ci askan wi bismillah sëriñ Modou dañuy ñëkke rek bala ñëw dugg ci walum fajj walum ñaan dañuy dugg ci naxan naxé bi. tey dañu gis sëriñ su bëri dañu nekk ci internet bi joxe seen i numéro téléphone joxe seen kër xaaj bi yëpp du doon dëgg daal ay naxe lay doon nga gis nit ñi di woote dootuñu leen jot mu doon ay naxe yow ngay koo xam ne da ngay ñaan dëkk ci dëkk bu sell bi di Touba yaakaar naa ñëpp ràññee la ngay doonu doomu dëkk bi tey loolu nga ñu ci lan nga ñu ci mën a wax wala ñoo dugg ci wàllum faj waaw soxna si loolu moom boo ñu ci laajee dañ ciy kontaan bu baax a baax ndax àdduna tamit dañoo toll foo xam ne nii wan ma ma gis lañu war a wane ndax américain yi tamit boo amee diplôme doon liggéey wala nga jàng ba am diplôme boo ñëwee dañuy teg diplôme bi naan la li nga li nga jàng wane ko ñu gis sëriñ yi nag dañoo bari ñoo xam ne dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy ràngu mooy dañuy ràngu dañuy ñëw ci yow daan la man de mën naa faj nangam ñëw ci internet daan ne damay faj nangam damay faj nangam te yow alaam li ngay wax daan ne mën naa ko faj dara nga ci mënta faj rab du luy caaxaan man am na ñu bari ñoo xam ne damay jugee Casamance jugee Guinée Conakry yooyu yëpp génn dem naa fa mais bu ma ñëwee ma indee samay garab avant ma koy teste dama ne ci sëriñ laa koy a teste ñu bari ñoo ma ma bëgg ak li ma li ma ko ak ma koy doxalee dañu bëy duñ benn bi ma maa ngi leen di laaj waaye a dañuy dañ may xamal ne ñoom dëgg leen a jóg teg dil ñi teg dil nit ñi moo leen tax a jóg parce nit ñi tamit dañoo toll foo xam ne yaakaar naa dañoo bëgg ku leen nax man nag yàlla dafa dogal ne man ay caaxaan dama cee xajul euh, am na ñu bari ñoo xam ne xam nañ ma mosuma dugg ci internet bi waaye nit ñi dañoo yaakaar ne képp ku dugg internet bi rek ndaxee moo la tax a jóg man nag dama bëgg effacé loolu li tax ma bëgg effacé loolu mooy ñi nga xam ne yàlla dogal na ñi ngi fi faj ngir jëmmi yàlla ñi ngi fi ba tay boo gisee tamit man ma wax fa ma dëkk Touba Njaareem dëkk la Touba laa dëkk Touba Njaareem ci wetu euh, kër sëñ Saliou Mbacke laa dëkk képp koo xam ni da nga maa soxla da ñëw ba sama kër ñu jëflante képp koo xam ne tamit Euh, euh, Europe nga nekk pour ñu jëflanteel dama la jox sama numéro sama numéro bi ma yor moom laay wuyoo fépp képp ku ma woo jotoo ma tamit boo ma envoyé message WhatsApp ma man koo liir li sëriñ yi fi nekk nag di naxaate tamit man ñooñu ñoo ma tax a jóg moo tax tamit ma génn di ci wax ak ñoom bu baax a baax li nga xam ne moom mooy suñu suñu suñu suñu liggéey dëgg-dëgg ci wàllu rab la euh, borom xay gi li tax ñu ñu dàkkantalee suñu bopp borom xay gi képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci xay rek yaa ngi liggéey ci rab rek war ngaa xam ne rab moom ñëmul xay waaw bokk na ci tamit li ñu ci gane euh, euh, li ñu li ñuy dugal ci xay bu baax a baax ñun suñu maam yi ci sama wàllu maamu yaay ak ci sama wàllu baay ñëpp xam ne borom yi rab lañu li tax li ñuy gane ci lii nag am na loo xam ne moo ñu daan gane chaque fajar di ñu wax génne leen lii génne leen lii. bi ñu demee ba yàlla dogal na li ñuy digaloon ci sarax ñu def ko tamit yàlla dogal na képp ku fi ñëw ku ñu bëgg a faj. ñun li ñu àndal moo naan joxee lii ñu dem ba xay gi li ñu koy joxee la dafa bari am na ci xay gi nag du moom dong la ñuy jël di ko joxe dafa am loo xam ne moom nañ koy tëggee di ko defee am na ñoo xam ne sax ñii ñu ci doon roy di ko jël di ko jox nit ñi waaye nit ki loo loo jàngul ko mën a tari sëriñ yooyu nag loolu lañ daan jël daan leen ko jox waaye dañ ciy teg dil waaye nag man li nga xam ne moom moo lay jëflante ci wàllu rab rab gis naa ñu bari ñoo xam ne nee dañ koy faj waaye rab du ay caaxaan soxna si rab duy caaxaan rab fi mu nit bu ñu woon nga koy ñaanlu sax mu jox la ci 5000 wala 10 000 francs wallahi alazim boo ko lekkee nga jëloon intention ñaana ko rab yi dana la seet si am na ñoo bari ñoo xam ne xamuñu loolu dana ñëw ci sa njaboot wala mu ñëw ci say sët wala mu ñëw ci sa waajuru jigéen nit ñu bari ñi ñaan nag dañoo suuraal ne waajuru jigéen lu am sémbul ci ci ñaankat la ba tax na tamit jël nañ ci intention jël nañ ci ay précaution bu baax a baax bu yaato yaatu képp koo xam ne nii bëgg naa ñëw pour faj si rab bu leen neexoon ñu woo internet bi yëpp képp koo xam ne kuy tele ñu jàkkaarloo ak man ma wan leen ni muy faja Macky Sall nag dafa war a jël ay matukaayam bu baax a baax ñi nga xam ne nee nañ dañuy faj wala dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy ñaan kenn ku nekk ni yaay jaam yi defoon lay war def kenn ku ne ñu woo la wax la fi nga manee bu ko defee yëpp dana mën a wàññeekoon ndax nit ñi tamit dañoo sonn nit ñi dañoo feebar dañ leen war a dimbali ngir yàlla surtout waa extérieur laa wax am na ci ñu bari ñoo xam ne dañoo bàyyi seen day bàyyi seen bàyyi dem extérieur di liggéey bëgg ñàkk muy ngir jariñoo am nañ ñoo xam ne problème mu famille lañu am am ñoo xam ne problème mu soxna am ñoo xam ni problème mu kàttan am ñoo xam ne dañoo wér di am ñoo xam ne ay kayit lañ soxla ñu jël euh, ab sëriñ daan leen mën naa leen a ñaanal jël xaa ñu jël xaalis bari envoyé ko bi ñu ko envoyé xaalis ba noppi sëñ bi dañ koy woo ba sonn mën ñu koo jot ndeysaan nañ seet yàlla ci li ñuy def ndax yaakaar naa ñiy ñaanlu si ñun ñoo dox seen diggante ak ñoom dañuy liggéey ñun ñi ci kuréel yi di ñaan kon war nañuy seet yàlla bu baax a baax ci li ñuy def képp koo xam ne daal jël nga intention li nga xam ne moom laa wax ne moom laa mën a faj boo fi ñëwee wallahi lahasim ma ñaanal la wala nga am fi ay bis ci wàllu rab gisoo ci dara bu la neexee man naa la dellu sa xaalis wala bu la neexee képp koo xam ne tamit dafay ñëw dama naan ko ànd ak sa kilifa ndax man lépp lu may def damay bëgg témoigner te tamit képp koo xam ne dañuy ñëw ci man dama naan la fii mooy sama kër bu ma lekkee sa dërëm ñëwal ba asi fii xam ne fan fii laa dëkk man bëgguma naxaate bëgguma di jël dërëm nit te liggéeyuma ko seet danga ciy yëngu rawatina ñi nga xam ne ñu ngi extérieur wala ñu xaw a sori bëgg a seetlu bu ñu bëggee seetlu ci sëñ Modou nan la def wala seet moom dañ cee yaatu bu baax a baax a baax seet am nañ ci façon dañuy seet ci wàllu biddiw dañuy seet ci wàllu rawxaan waaw ci yu bari ay côté yu ne lañuy yëpp loo xam ni daal euh, borom dëkk bii di Touba digle na ko ci wàllu islaam mu nangu ñoo xam ne dëkk bi nangoon na ko ci côté bépp yëpp gëstu nañ ko ci dafa am yoo xam ne dëkk bu ñu dem nag dafa am fu ñu fay seetee ndax dëkk bu ñu dem dañuy xool rawaxaana ba la ma àndal ñu koy seetee waaw ñun ci loolu lañ gën a mën a yëngu dañ fi exploité waaye nit ki tamit bala nga koo ñaanal faaw nga xool ko man nit bala ma koo ñaanal faaw ma seet ko xool ko bu baax bu fekkee ne ci wàllu rab la dama koy wax bu fekkee ne ci beneen côté bi tamit dama koy wax ci wàllu faj nag rab nag bu ñu waxee ne rab mën nay def lu ne lu ne soxna si am na ci ñoo xam ne dañoo cancer rab leen ko def am na ñoo xam waaw rab am na ñoo xam ne cancer rab moo moo gën a mën a indi feebar am na koo xam ne damaa seet woon bi ma la bi ma yëngalee rab bi ma laaj ko mu ne kii te rab ci gën a garaaw soxna si du du dugg nit nit ko xamni ni naroo tekki naroo def dara rab du ko dugg de rab day ñew ci ab famille ñu xol ki nga xamni mo na nar a réussir ki nga xamni ne bu réussiree jàppale famille bi ak ki nga xamni bu réussiree xam-xamam dana jàppale famille bi mu dugg ko li waral loolu nak koko mamam da daan ñaan wala bayam da ñaan ba nopi sëngatul len motax nit ko xamni day ñaan bala nga jëfëndiko dara war nga sangatu di sangar say njabot ndax euh, ndax rab yi kat buñu génné dafa am ci fanen fuñu dugg te rab nak du xaan dafa deugur bop benn fan ñaari fan génnewu ko ci nit gis naa ci bari ñoo xam ne dañ ko ci jëf waaye rab dëgg dëgg dëgg dafa dëgër bopp dëgër bopp goo xam ne caaxaan génnewu ko ci nit am na koo xam ne soxna soo xam ne woo naa ko nee na moom mi ngi ci borom mi ngi ci ci cib sëyam te ku gëm yàlla da daan julli waxtu yépp waaye rab yi da koy xiir ci moom day fooye awraam te képp koo xam ne yor nga whatsapp wala mu yor sa numéro téléphone bu ko enregistré day photo boppam photo photo photo payam photo boppam envoyé la ko bu dee wax ak yow nee na boo koy woo téléphone da ciy bànneexu te wallahi alazim kooku kilifa gu baax la kooku euh, nit ku ku jullite la te loolu muy def noonu ñeneen bu ñu ko déggee bu ñu ko gisee ci moom dañ naan dafa réew wala dafa caaga wala dafa bon te fekk ne rab day def loo nit noo xam ne dañuy yaakaar ne lii nit ki la te fekk ne du nit ki rab la am na xale yoo xam ne seen réewane yu doy waar la ñuy réewane dañuy yaakaar ne kii moom moo tay li muy def mais teyu ko xale yu jànq yu ndaw yi tamit yi nga xam ne ñoom laa ciy déclaré souvent lu ëpp rab moo ëpp lu mu leen di dugg ndax suñu yaay yu mag ñi ñoom nañu daan jëfandikoo rab du leen du leen dugg xale tey yi nii da gis koo xam ne nii dafa dafa toll diggante mooy euh, dafa toll régal gis régal ak yooyu jël ay euh, coton yooyu bu ko jëfandikoo pare au lieu mu sànni ko ci duus ba da koy jël sànni ko ci mbalit ma fekk ne rab yi saytaan yi ñoom deret lañ gën a soxla bu boobaa rab bi moom bu xeeñ koo deret yi bu ko xamee day jubali ci kooko deret dugg ko ndax doomu aadama tamit ni muy gisee xale bu góor ni muy gisee ku jigéen mu taaru mu bëgg ko rab tamit noonu lay gisee ku jigéen mu taaru mu bëgg ko xale yu jigéen yi nga xam ne dañoo toll ci diggante boo xam ne li ma leen di digal la mënuñoo sëy buñ jàpp ne dañ leen koo def junne la ak lu yàlla dogal ci ñoom waaye képp koo xam ni tamit ñëw nga fi yàlla di dogal na la nga ñëw fi ñu jàkkaarloo insha allah rabbi bu fekk woon ne rab wala téyoon sëy la ci benn fan boo fi ñëwee da nga xam ba xam raba la jàpp wala du la jàpp ndax am na loo xam ni mën nañ wax mu nekk ci sa biir ma enregistré la wala nga ànd ak kenn boo noppee da nga danañ la wax lii yaa ko waxoon te boobaa da nga naan waxuma woon lii rab na ku mu jàpp moom bu fekkee ne yow dong yaa fi ànd ñëw boo waxee li nga fi doon wax nopp ba noppi buñ la waxee lii nga fi doon wax da nga lii waxuma ko woon faaw nga ànd ak nit pour mu mën a xam ne kii kër li mu doon reewantal ci kër gi wala kii lim ñàkk bañ a am borom kër lii moo ko raloon rab li muy nëbb ci li muy nëbbu dafa bari waaw secret la boo xam ni doomu aadama mënu koo gis waaye kii jëflante ak moom rek moom moo koy moo koy gis waaw ba yàlla dogal na xale boo xam ne ñëw na fi ak comme man doon ngir jëm yàlla dañ leen koy ñaanal nit ñi euh, dañoo bëgg ku leen nax te dañ leen a bëgg a laay bire suñu wax ju bari ji mooy dañ leen a bëgg a bu ñuy dugg ci nit nañ ko seet seetandal ko wax ju neex yére bu neex portable bu neex li ëpp solo mooy nit ki bu la joxee sab dërëm wallahi lancim waslu ci àq nga defal ko loo xam ni ndax yàlla dafa bari yërmaane nit bu dawee bu gisee doomu aadama yëpp di daw ñëw ci diw yàlla dana ah comme ñi yaakaar nañ ko ngir man duma tas seen yaakaar mukk waaye da gis sëriñ boo xam ni nit ñi dañ ko jox alal mu denc ko toog fi mu toog tëdd di nelaw ku ko woo téléphone mu fay téléphone ndax lam soxla woon am na ko di xalaatul ne ëllëg conséquence am bàmmee la xalaatul xalaatul ne nit ñi tamit ni la xoolee ci internet bi ba jox leen seen xaalis noonu la ñuy coppi waate vidéo yu daal daaj koy posté daan ne kii moo lekk sama xaalis te loolu day yàq sa image boo xam ni nag su dul noonu loolu jëru ko ci moo tax sama mbokki sëriñ maa ngi leen di tuubal baax critiqué wu ma jaayu ma sama bopp wane wu ma dara waaye damay baaxee askan wi ndax nit ñi dañoo toll moment boo xam ni que dañoo bëgg leen nax te tamit naxaate baaxul te nit ki tamit lépp lu muy def ëllëg da koy répété waat ñëw ci rab saytaane euh, junne ak ku ñuy tooñ noonu la wala. Euh, ñeent yooyu dëmm lan mooy seen euh, différence ba pare surtout dëmm ndax nee na dëkk ak nit ki sax sa doo xam ne dañ koy tooñ lan mooy différence. waaw dafa am loo xam ne nit ñi ñoo koy waxee mag ñi ñoo ko daan waxeen ndax olof dafa nekk koo xam ne nii. xam nga yàlla moom bi mu tudd moom junni rek la tudd waaye doomu aadama ñoo fi indi yooyu yëpp dafa da yàgg ngaa gis nit feebar nga bokk moom nday ak bàyyi mu feebar commencé waxtu te yow mii sax yow mii mu bokkal nday ak bàyyi yow lay wax bàyyi ma te bu fekkoon ne bu ko waxoon ab jàmbur dan naan kii dañ koy tooñ te te gisoo kenn koo xam ni am na fi dara am na fi xaalis ñu koy wax wooy ab dëmm waaw amul léegi nag nit ki dafa am doomu aadama yoo xam ne nii bu ñu feebaree wala ñu ànd ak tàngoor dañuy wax dañ dañuy wax mi ngi mel ni comme gént rek am na ñoo xam ni li ñu defoon ci surne bi bu ñu tëddee guddi dañ koy gént waaye nag gént lu am la waaye li ñu naan junne ak rab rab lu am la waaye mën na li koo décortiquer dafa am loo xam ne nii nag ci junne yi li ñuy wooye rab ci màndarga baaxul ndax junni saytaan yi la mi ngi mel ni doomu aadama doomu aadama doomu aadama la waaye nag am na ay agresseur am na ñoo xam ne nii lu bon la ñuy def kon nag junne bu ne junne ci melokaan dafa am kenn ku nekk ak la ngay def junne bu bëggee waxtaan ak yow bëgg a jëflante yow day soppaliku nit ñëw waxtaan ak yow waaye souvent lu ëpp ngelaw lay doon mën naa nekk jësit mën naa nekk jaan mën naa nekk jiit mën naa doon mm, mm, mën naa mën naa doon uh, unk li ëpp lu muy soppaliku yooyu la doon jaan wala jësit wala unk wala ngeraw ndax yàgg ngaa gis nga tëj sa bunt jekkee ki dégg dégg mu ne karaj ubbeeku xam nga ne buntu kese bu ubbeeku am na lu ko ubbi te lu ko ubbi ngelaw lay doon wala muy loxo lu nga junne nag lu ëpp luy soppiku lu ëpp ci ngelaw lay doon moo tax bu lay seetal souvent lu ëpp yu mag yi dañ naan ngelaw moo dugg te ngelaw la bu yàggee mën naa ñëw feebar ci yow feebar bi bi ci màndarga bi dañ laa liggéey wala dañ laa booleeg junne am na ñoo xam ni nag buñ leen liggéeyee dañ leen di booleeg ay rawaxaani junne saytaane yoo xam ni liggéey bi moo leen di topp di leen yàqal ñoo xam ne lay liggéey ba noppi suul la ci suuf suuf si heure bu lekkee liggéey bi rek jeex na yow da ngay dof wala nga nangam waaye am na ñoo xam ne dañ lay booleeg ay junne lépp loo def rek junne ji moo ko yàq ndax junne moom koo xam ni yow xam na doomu aadama li ne ci moom bala ngaa def moom mu wan la li li ngay waaj a def kooku moom kenn mënu koo jaaxal waaye nag des di am fu ñu jaar ak moom ndax moom lu mu saay saay saay saay saay am na garab yoo xam ne da ca toog tong guy la gën a yab waaye kii di xay euh, yëbu ko daqaar la gën a yab waaye kii di xay yëbu ko dafa am yeneen façon garab yoo xam ne nii boo ko booleeg alxuraan bi composé ko boo ko sangee ci koo xam ne rab la wala nga suur nga suur ko moom sangu ko ci da ngay dégg ndaw si ci bopp mooy wax yaa ngi may lakk wala maa ngi génn maa ngi dem toroxal nga ma nàngam nga ma wala bu fekkee ne ku baax la danaan la bàyyi ma ma tuub ma tuub jébbalu waaye nag koo xam ni teg na ci bëtam man de maa ngi koy faj waaye màndarga yi ma ci gis gisaguma ci boole junne ci boppam ñëw ci man daan la man may junne wala nàngam dalay jox siiñ di am nu muy waxee ak yow ngay tudd ndax junne dafa nekk melokaan woo xam ne wu raglu la mi ngi mel comme malaaka ni mu ragloo danga am ci ñoo xam ne dañuy dañuy tollu moment boo xam ne ñi ne ñi ngi koy gis waaye nañ ko gisee ak na ko yàlla bindee bokkuñu junne tamit dafa am melokaan woo xam ne moom la ko yàlla bindee bu la bëggee dimbalee dafa am beneen méthode woo xam ne moom lay ñëwee mi ngi mel sama xarit lay ñëwee bu ñu waxtaan ba noppi ba sama xel giif mooy man de nangam laa man de junni laa man sa xarit nangam laa bëgg waxtaan yow bu demee ba benn moment wéetaay da lay da lay bëgg di la wéetloo wéet nag ñaara ci am junni saytaan dafa am ñoo xam ne buñ wéetoo ak yow dañ lay bëgg a fooyaloo bopp am na xam ne buñ la wéetul dañ lay jaamoo jaamaloo yàlla waaye li ci ëpp ëpp ëpp solo ñi ma gis ñi nee neenañ dañuy faj junne man bu ma ko déggee damay jaaxal bu baax ndax dama dama ci heure bu ma ci jëflanteek nit guddi googu bu ma ko tëddee damay xeex ba suba ñoom ñoom bala nga leen a génne moom bala nga leen a génne ci eh, ci ndaw soosu noonu da ngay xeex ba suba te faaw ngay def ay sarax sarax yi lay laaj nag moom yow yaa xam. li nga xam ne moom la junne ji laaj waaye nag junne du looy koy neexal am na ñoo xam ni ñu ñuy neexal la am na ñoo xam ni du ñu ñuy neexal ndax junne seytaane boo ko neexalee bu lay laaj mën na laaj laaj ba laaj la say njaboot waaye junne xam ne daa bëgg jël intention pour bëgg liggéey ak yow mën na laa bañ a laaj yenn euh, yëfi islam la laaj julli la lay sant saraxel lu baax dellu fonk del jàng ay yaasin del del ajjuma bu jotee del dafa nangam del dafa nangam moom la lay laaj waaye waaw. ay ci waxtu wi ñu cërale woon lu ci des euh, bareetul waaye dañuy ñëw ci wàllum cat. ak yeneen yi nga xam ne yaa ngi koy faj ndax yemoo ci junne yi rek. bu ne borom xëy yaakaar naa làmboo nañu lu ba lu baree bari. waaw cat tamit dafa am lu mu làmb lu bari euh, euh, dafa dafa ba léegi damay ñëwaat ci junne ji. ndax euh, ni ñuy ni ñuy tuddee ni ñuy tuddee junne noonu la ñuy tuddee cat cat dama ne moom moo bu ñu waxee sax moo gën a garaaw moo gën a garaaw ndax Serigne Touba ni ñi mu ci musloo da ciy muslu ba nit ñi nit ñi nit ñuy dugalee ca bàmmeel bi dooma dañ ci daa muslu ba nit ñuy musloo ni ñu may dugalee ci bàmmeel bi nga xam ne kon cat nekk na loo xam ni lu doy waar la nekkul la man de nekkul loo xam ni dama koy facc sensé cat dafa nekk boo xam ne am mbubb la dañ koy sol di ko simmi di ko heure bu tilimee ñu fóot ko bis bu set da ngay daabali sa bopp waaye nag nekkul loo xam ne doomu aadama bi man de du jël lenn engagement la xam ne daane dama koy faj jooni jooni la ma daan faj di ko defee yàlla nga ci daan may ndam kenn gisuma woon waaye heure bu ma génnee di ko yaatal yàlla nañ ci yàlla maye ndam waaye nañ ko bëggee woon tamit noonu la koy defee waaye nag cat moom nekkul loo xam ni dam naan la nit dama la koy raxasal waaye heure bu ma ci jëflante yow bu ma noppee bu fekkee ne sama kër nga bu ma la bàyyee mën nga tëdd nelaw te doo xam lu lay neloo ndax dafa am ñoo xam ne seen yaram dañuy yaakaar ne cat doo nga leen jàpp waaye am na leneen lu leen jàppaat am na ñoo xam ne nit yi bët lañ nit yi bët mooy du nit ñuy tooñ daa am nit ñoo xam ne dañoo dañoo soppaabul bu nit ñi bu leen gisee lañ leen di sopp dañ leen bëgg léegi bëgg gis gen leen gi gis ñi ak seen lam yi ñuy wax nii moo waral bu ñu demee rek du leen lebal dara mooy indi ay put ci yow mooy indi yaraw mooy tàng moo waral ngay perte bi di waxtu moom yaatu na ci képp koo xam ne daal ñëw nga fi moom ñu jëflante suñu borom daan la ci may ndam bu baax. dañuy ñëw ci wàllum góoro yan ngay faj koo xam ne day dem ba mënatul dara wala koo xam ne daal tële da koy da koy lijjanti wala fal wàllum góoro ci yan ngay faj wala koo xam ne day dem daal bu mënatu ci dara même bu ñëwee mën nga ko ci jàppale. waaw waa wàllu kàttan dafa am ay façon damaa waxoon daal ne sama sama garab bu fekkee ne koo xam ne nii da koo dab bu ko neexee mën naa ànd ak soxnaam ñëw ma abal ko lal ñu yendu fa bu lekkee ba jour naan ba màndi ma jox ko garab bu ci gisul dara ma delloo ko yëppam kon wóolu gi ma ko wóolal ci misaal lépp lu may wax nag dama ciy séer yàlla bëgguma nag ma wax lenn loo xam ni dañ naan daa bëgg wax rek waaye bu ñëwee bu ñu ko joxee suñu xaalis am nañ kersa pour nanguwaat ko déedéet da liggéey sa xaalis ñàq ko mu lew la donc li nit ki wax nag ba mu la nga ñëw ci këram gisoo loolu war ngaa mën a wax ak moom am loo wax ak moom nag dama yaakaar ne doomu aadama lépp loo xam ne liggéey na ko ci wàllu garab bu ko defee na nga ko war defalee bu ko jëflante suñu borom dana ci may ndam léegi dafa am ñoo xam ni nag moom ñi nga xam ne dañ ko dañoo dem ba toll yenn âge yi wala daan fooyee seen bopp wala dafa am ñoo xam ni tamit rab da leen di dugg ndax bu fekkee dafa am ñoo xam ne dañ dañoo ñàkk kàttan te fekk na rab da leen di bu ñëwee dama leen jox ci garab garab yi rab yi mooy xay gi jox leen suuru ba noppi jox leen kàttan man nit bu ñëwee daan na damaa ñàkk kàttan du ma jekkee kër jël jox la garabu kàttan ndax mën ngaa jox nit garabu kàttan mu ne gisuma dara te fekk na moom la ko jàpp bokut ak katan dong rab la rab mom moy def lepp comme ku ki meuna a lo nit waxuma lak nak lanen man na def lanen kon nak kep ko xamni ñew na ci par étape la ni ma waxee ci walu dof ak ko xamni rab da koy doog a dugg noonu laay waxee tamit ci walu ngóora wa cat dal euh, ak ak ak ak ak rab wa ak ngóora kep ko xamni ñew na fi mom bu la xolé ba ba jakarlo ak yow danañ mën a xam yeen traitement lañu def ak yow waye comme nga gisagun la moom danañ la mën a ci euh, période bi lañ ko mën a faj période bi lañ ko koo xam ne da koo dab mën nañ ko cee faj lu néew koo xam ni nag moom dafa yàgg ci moom bu ñu ñëwee danañ ko xool ci ñaari côté ci wàllu rab wala ci wàllu kàttan moo ko tax a jóg waa xam ndax ndax da doon faye fooye boppam waa ndax ba xam moom lii da koo dabaale borom xëy gi ngi lay sant bu baax di la gërëm nga tàggoog mbokk na di rawatina seed yi bëri na ci télé yi sëriñ si bëri nañ ci tele yi comme ni nga ko waxee léegi ñuy ñaan rek kenn ku ne ngay liggéey liggéey bu set ngir euh, suñu borom ndax kenn ku ne di nga wéeteeg sa bàmmeel tey lan ngay tàggatoog mbokki internet di rawatina nga joxe sa numéro ndax xam naa ne fi mu ne nii moom ñëpp bëgg nañ nga am sa ni ñëpp bëgg nañ am sa numéro rawatina jigéen ñi nga xam ne tollu nañ ci bëgg dugg ci néegu sëy sam tëleen torop ndax rab waaw euh, loolu loolu moom lu wér la boo gisee sax ñu gën a yaatal di bëgg a raxas suñ mbokk doom yi soxna yi di raxas seen ginnaaw pour bëgg yenn yi lii dong la woon waaye li ñu taxoon a jóg moom mooy lii euh, euh, suñu kër tamit Touba lañ dëkk Ilipor Touba Njaareem ginnaaw kër Serigne Saliou Mbacke Serigne Modou Dieng borom xay gi lañ ma tuddee euh, sama numéro 77 la 715 55 12. képp ku ma ci woo da danaa la wuyu ci kàttanu yàlla bu fekkee ne jotoo ma tamit boo ma envoyé message whatsapp incha allah rabbi danañ la wuyu ci wàllu seet ak ci wàllu rab ak ci wàllu kàttan ak koo xam ni dañ dafa dañ koo dëj ak koo xam ni dangaa yor sa soxna bëgg mu toog ak koo xam ni sa soxna da ci wàllu xee mboolem xeet loo xam ni daal ci wàllu ñaan la képp ku fi ñëw loo xam ne mën nañ ko boo ñu ci wooyee dana la ci wax loo xam ne tamit mënuñu ko boo ñu ci wooyee tamit danaan la yàlla dogal woon ñu man ko wàllu moodu moodu yi dañ ko fàtte nga xam ne problème mu këyit la am ndax loolu yaa ngi ci yëngu waaw ñooñu de samay mbokk lañ ndax dama cee bari ay mbokk ci wàllu goro ci wàllu côté bu ne ñooñu sax laa war a gën a jiital ndax moodu moodu tamit li taxoon may wax sëriñ yi moodu moodu yi la la ñu ëpp lu ñuy dóor waaw muur muur yi la ñu ëpp lu ñu dóor dama ci dama leen bëgg a yee daal nit ki moom buy jëflante ak yow koo ci jëflantee benn ba ñaar bala ngaa jëflante ak moom am nga mbokk Sénégal na ñëw ba ca kër sëñ boobu loo ak moom bu ko defee sëñ boobu nga jox sa xaalis wala nga envoyé ko sa xaalis ëllëg bu la tegee din nga mën koo gis moodu móor yi maa ngi leen di tàllal loxo bu leen dugg ci loo leen xamul te bu leen nangu ku leen nax ndax seen xaalis bi kat amoo leen ko nu yomb dangeen a bàyyi yaay bàyyi bàyyi ñëw ci dëkk boobu kon lépp loo leen di joxe mooy seen dërëm rek bu fekkee na leew na leen dong fépp fu leen koy dugal na leer lépp loo leen bëgg ci wàllu côté boobu noonu incha allah rabi ci wàllu kayit ci wàllu euh, tukki bañ a mën a ñëw ñu ngi leen di tàllal loxo bu baax a baax képp luñ ku ñëw woo daal wax ñu sa soxla ci côté bu ne bu ñu ko manee danañ ko def ngir lillahi wa rasuli buñ ko mënul duñ ci am kerte duñ ci am luñ ci rus danañ la ko wax daan wax dëgg yàlla loolu da jànguñu ko numéro bi nag dañ koy rappelé waat lu bari bari mooy 77 715 55 12 bismillah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh